كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi allazi xalaqa fa sawaa summa qadara fa hada fatiri samawati wal ard wasalaatu wasalaamu ala rasulil mabuusi rahmatan lil bashiran wa nadiran wa daaciyan ilallahi muniran innama buistu li utammima makaarima al axlaaqi

kër gu nekk kër kilifa gu nekk ñu fay dugg di sukk suñuy bëti oom waaye di leen nuyu ci nuyu bi gën a rafet muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ngeen ànd ak seen mbokk seen xarit Seyda Fatima Zahra ci seen émission topp sa diine waaye di ziyaar ñëpp di ziyaar sama mama mama Adja Ndiaye nekk ci kër Mbay Fall maa ngi lay ziyaar di ziyaar sa borom kër macha allah du rate émission bi waaye di ziyaar sama tata bu baax nekk ca puut muy tata ca bandooy mama uli Seck maa ngi lay ziyaar di ziyaar waa Kaffrine yépp waaye nag mbokki bii paase dafa amoon fu ñu tegoon suñu baaraam ñu nekkoon ci li nga xamante ne moom mooy iñaan waaye fa ñu tegoon suñu baaraam foofu lañ ñëw fas yéene ko eggale ndax mbokki ñu ngi doon waxtaanee li nga xam ne iñaan muy li nga xamante ne moom moo sonal nit ñi li nga xamante ne moom moo nekk ci xol yi di ko lakk kon yàlla nañu ci yàlla musal waaye ñu ñëw ci an muawiya ibnu abi sufiyaan radiyallahu anhu annahu li ibnihi moom muawiya ibnu abi sufiyaan di wax doomam di ko dénk ay kàddu macha allah mu ne ko yaa bunayya iyaaka walxasad fa innahu yatabayyana fiika qabla an yatabayyana fi aduwika moom Muawiya muy yedd doomam ne ko yaa bunayya yow sama doom maa ngi lay wax na nga maytu li nga xamante ne moom mooy iñaan lu tax mu war a maytu iñaan mu ne ko inn iñaan balaa muy feeñ ci ki ngay iñaane ci yow lay njëkk a feeñ allahu akbar mu ne ko maytul iñaan ndax iñaan googu balaa moo feeñ ci ki ngay iñaani mu ne ko ci yow lay njëkk a feeñ kon mbokki lan moo tax Muawiya wax li ndax tey yow mi nga xamante ne tey dangaa iñaanee tey sa moroomu jullit balaa moo feeñ ci moom ci yow lay njëkk a feeñ parce que moom amul sa jot moom heure bu xëyee mu ngi xool lu koy jëmale kanam bu xëyee liggéey na bu wàccee tëdd na bu tëddee nelaw waaye yow mi nga xamante ne yaa ngi koy iñaane doo a lekk doo a naan dootal tala nelaw parce que heure boo xëyee yaa ngi wër ci li ko yàqal rek pour nga yàqal ko kon ci yow lay njëkk a feeñ doo tara lekk ba suur yow sa nelaw du doy yow foo ko séen rek teg la nga doon def def ni i xaaral ma jug yàqal ko ndax mbokk yi am na ñoo xam ne amuñu liggéey suba ba ngoon ci liy yàqal doomu aadama rek ci lañuy nekk diw tey du fi tekkee tey du fi amee lu baax tey palaas bi wallaahi du ko jig moo tax loo ci gis bàmmeel yépp sulli nañ néew yi waaye di sur gàllaaji loolu yépp lan moo ko waral ndax iñaan waaye jullit du iñaane moromu jullitam da ngay gis nit jékki-jékki di jeex jékki-jékki di jeex ba wow kongu ñu ne diw ban feebar la yor kii lu ko dal fekk feebar bu bon la yor mooy li nga xamante ne moom mooy iñaan kon mbokk yi nañ leen maytu iñaan moo tax Muawiya mu ne doomam maa ngi lay maytukuloo iñaan ndax balaa moo feeñ ci ki ngay iñaane ci yow lay njëkk a feeñ kon loolu mooy li nga xamante ne moom mooy alxasad moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne alxasuudu laa yasuudu ku iñaan du jiite mukk ci àdduna yonent bi mu ne ku iñaan du jiite de ndax yow ka ngay iñaane moom bis bu xëyee moom dalay raw rek te yow da ngay anniyeer rek parce que yow yàqal ko moo la tax a jóg moo tax yonent bi mu ne ku iñaan ku nekk kooku du mës a jiite ci àdduna kooku heure bu xëyee rek dafay gën di anniyeer anniyeer rek di dem waaye mbokk yi buñ ne iñaan sama xel dafay dem ci ki nga xamante ne nii moom mooy yaayu muusaa muy umul muusaa moom mi nga xamante ne ni moom ak lan ak na najaar mënise ba ndax buñ fàtte ni banu Israël Firawna def ne woon képp ku ci judd di góor dañ lay rey ndax dañ na ko ki war folli sa ngóor bi góor lay nekk te ci banu Israël lay juddoo Firawna mu ne kon góor bu juddu dañ lay rey waaye at bi nga xamante ni ci lañuy rey góor ñi at boobu ci la yonent yàlla Muusa alayhi salaatu wasalaam daal di judd moo tax ma ne leen ummul Moussa wa Najaar yaayu muusa ak Manise ba ba loolu amee yaayu muusa daa tiit waaye moom mooy jigéen bi nga xamante ne moom la yàlla wax yu ci alquran yàlla daa di ne ko yi in xifti fa alqiihi fil yammi yàlla na ko judd na téye ko nga nàmpal ko sa xel bu dalut jël ko nga sànni ko ca géej ga ca dex ba kon yàlla wax yu na ko loolu te firawna góor bu judd mu rey la yàlla ne ko man sama programme kenn du ko yàq boo ma wóoloo teel sa doom nga nàmpal ko bu dee sa xel dalut jël ko nga sànni ko ca dex ba boo ko téyee fa ma bëgg mu egg fa dana fa yegg boo ko sànnee ca dex ba fa ma bëgg mu yegg fa macha allah dana fa yegg yaayu Moussa daal di dem ca menuisier ba ne ko dama bëgg nga defaral ma benn kees balaa na di gis sama doom ma dugal ci xale bi daat koy sànni ca dex ba ndax loolu moo gën a dal xelam mënise bi macha allah mu defaral ko kees bu baax yóbbu ko jox ko yaayu Muusa ba mu ko joxee yaayu Muusa yaayu Muusa daa di jël Muusa dugal ko ca kees ba macha allah daat koy sànni ca dex ba daa di wax ki nga xamante ne moom mooy mariyam mag la ci yonent yàlla Muusa ne ko toppal ma kees bi waaye bu kenn xam ni yow kees bi nga topp yow del foo say foo rek waaye bàyyil ma xel ci kees bi ndeysaan ba loolu amee moom Mariam daa di topp kees bi di foo ci tefes bi di topp kees bi ba kees bi egg fi nga xamante ne moom mooy pale Firawna ca tefes ba ah jànq Firawna yi daa di gis kees bi daal di ibbi fekk muy liir ñi daal woo ki nga xamante ne moom mooy Aasiya di soxna ci Firawna waaye ba Aasiya ñëwee daal di ibbi kees bi ndeysaan gis yonent yàlla Muusa yàlla mu ne wa alqaytu alayka mahabbata minni ma daal jël cofeel daal koy sànni ci xolu Aasiya mu daal bëgg yonent yàlla Muusa alayhi salaatu wasalaam yàlla rekk moo màgg ba loolu amee ah Asiya daadi di ne qaala qurratu ayni lii walak mu ne Firawna ay waay lii de sama bëtu xol la lii sama leeru xol la waaye du man de man ak yow mu ne ko ngir yàlla bu ko rey ndax lii xéewal la lii sama leeru xol la ndax yàlla moom moo jël cofeel sànni ko ci xolu Asiya di soxna ci na mel ni na daf ne ko lan moo tax duma ko rey kii aasiya daal di ne ko asa an yaafaana aw walla dan ndax man ak yow amuñu doom nañ ko jël ñu jàppee ko suñu doom ndax mën na am mu jëriñu ah firawna daal di bàyyi waaye nag yonent yàlla Moussa jékki-jékki di jooy jooy yu métti ndax amul ku ko nàmpal mbokk ba loolu amee ñi daal di ne kër buur am na liir ba fa nekk amuñu ku ko nàmpal nampalkat yépp daal ñëw rekk jooru kër firawna waaye yonente yàlla Muusa alayhi salaatu wasalaam ween bu mu nàmp rek ku ko jox ween bi rekk mu daal di bañ nanguwul nàmp benn ween kon foofu la yàlla naan wa xaram naa alayhi min qablu ma daal di bañ Muusa nàmp ci ween yépp li jiitu yaayam allahu akbar nanguwul nàmp benn ween waaye kon Maryam di mag ci Muusa yàlla daf ne ko woon toppal ma kees bi mu daal di ñëw ci kër na mel ni ko ci xamul dara ne leen kon xale bi bañ na nàmp man de am naa benn meer boo xamante ne bu ñëwee fii man leer na ma ne xale bi dina nàmp ñu ne ko looy xaar dawal nga indi ko dawal nga indi ko waaye ba mu demee daal di dem ci yaayam ne ko yow yaay Muusaa kat topp naa kees ba ba mu egg ci kër Firawna waaye nàmpalkat yépp jox nañ ko seeni ween mu bañ waaye nag dama ne leen am na koo xamante ne bu ñëwee Moussa dina nangoo nàmp waaye yaay dama la ñaan ngir yàlla rek boo demee bul wane ne yow yaa jur xale bi ndax boo ko wanee rek na da koy rey saan ndax diggante yaay ak doom dafa foor macha allah moo tax Mariam wax loolu yaayam Mariam daa di dem daa di egg foofu moo tax yàlla suñu borom mu ne qaala hal adullukum ala ahli baytin yakfuluunahu lakum kon Mariam daf ne leen am na koo xam ne bu ñëwee dina nàmp te dina nangu wahum lahu naasixuun ba pare da koy laaye biir yaayam yàlla daal di ne faradat naahu ila ummihi noonu laa jëlee yonent yàlla Moussa delloo ko yaayam yàlla rek moo am kàttan kay taqarra aynuha yàlla mu ne ndax dama bëggoon a feral ay rongañam ndax da doon jooy toog ay fan gisoo sa doom nàmpul xamoo ci lum nekk yàlla mu ne noonu laa jëlee Moussa delloo ko yaayam ngir feral ay li nga xam ne moom mooy rongañam daal dina ko wala taxzan wali taalama anna allaahi anna waadallaahi xaqun yàlla daal dina ko bul tiit ndax man yàlla lépp lu ma dige dinaa ko def kon mbokk yi ba loolu amee mariyam na yaayam boo demee bul wan ne yow yaa ko jur ndax Mariam bu ko waxutoon loolu rek dina egg na wuy yaay sama doom a ngi nii kon niñ koy defee ndax diggante ak yaay ak doom dafa foor moo tax yàlla mu ne man yàlla walaw laa an rabatnaa ala qalbiha bu taxutoon li ma téye xolu yaayu kon bu eggee ca kër Firawna dina wane ne man maa jur xale bi yàlla mu ne waaye man maa bës xolam ba waxul wuy sama doom a ngi nii yàlla mu ne noonu laa jëlaatee muusaa delloo ko yaayam waaye bam ko nàmpee ñu ne ah Moussa kat nangu na nàmp ñu ne ko ñaata lañ lay fay est-ce que di nga mën a ñëw bis bu nekk pour di nàmp si fii pour di nàmpal xale bi mu ne leen duma ko mën ndax dama am borom kër damaa am ay njaboot il faut ma dellu sama kër li mën a am mooy ngeen jox ma ko ma nàmpal ko ba mu fer ma indil leen ko te pourtant doomam la kon yàlla lam ko waxoon am na boo ko téyee dinaa ko aar boo ko sànnee ca dex ba dinaa ko aar ñu ne ko kon jël ko nga yóbbu ko sa kon weer bu dee ñu ngi koy fay di ko jox dundam te mu ngi nàmpal doomam yàlla mu ne ko nii laa delloowee Moussa yaayam ndax man yàlla lu ma wax def ko walla walakin aksarahum laa yaalamun waaye lu ëpp ci nit ñi xamuñu yàlla lépp lu mu programme rëdd ko wallaahi fu mu jaar loolu dina yegsi moo tax bu ñu defee nànk lépp lu ñu yàlla jox incha allah dana yegsi waaye mbokk lu tax ñu indi histoire boobu li tax ñu bëgg a jàngal leen ci li nga xam ne mooy histoire muusa ginnaaw ba nga xamante ne loolu am na menuisier ba defaloon kees ba iñaan daat koy dugg kon ba tey ñu ngi ci iñaan mu ne lii daal mënul nekk ñëw ma defaral ko kees sauver ko jàppale ko mu dem ñu jox ko doomam te moom moo ko jur di ko fay bés bu nekk mu nekk biir këram na di ko defal àdduna la ci biir menuisier bi daal di ne lii moom man mënuma kaa supporter kon kooku iñaan dugg na ci xolam kon kooku iñaan sonal na ko mu daal di ne damay dem boole ko na mu daal di jug daal di ñëw laaj audience ñu wan ko Firawna ba mu demee ci na dem bay bëgg a wax rek yàlla téye làmmiñam allahu akbar ne ko tey daal doo fi waxee ndax man sama programme kenn du ko yàq Firawna daal di ne ko loo wax mu nekk fa munta wax daldi muuma muuma ba munta wax na ne kii génne leen ko ndax man xawma li muy wax ba mu génnee dox ba ci yàgg wax wax ji leer mu ne waa man lan mooma ma dal lii daal mënuma koo muñ ah si kii nii faaw ma boole ko na yaayu Muusa mu daal di ñëwaat laajte waat Firawna ñu wan ko Firawna bañ ko wanee na mënatul wax yàlla téewaat làmmiñ bi na ne ko yow bu ma fontoo de ñi génnee leen kii ñu daat koy génnee mu daal di doxaat tuuti daal di waxaat wax ji leer nañ mu ne lii daal mënuma koo muñ ndax wax naa wax ji leer faaw ma demaat ci Firawna waaye kon na yàlla da ko may pouvoir ba mu ñëwaatee ci na mënatul wax yàlla tiiwaat làmmiñ bi Firawna ne rey leen ko ndax kii daf ma yeb ñu daat koy rey kon mbokk yi kooku lan moo ko yóbbee loolu mooy li nga xamante ne moom mooy iñaan te pourtant bu demoon ci yaayu yonent yàlla Muusa ne ko kon man maa kees bi su ma sañoon dund biñ lay jox salaire biñ lay fay nag ma ci may bu jaaroon foofu billaahi jàmm rek mooy am kon yaayu Moussa gor la dina ko may ci salaire bi te dina ko jàppale waaye kon kooku iñaan moo nekk ci xolam kon kooku soxor moo ko yàqal moo tax tey rend nañ ko yéen néeg la borom moo ciy fanaan macha allah kon kooku yàlla effacé na ko moo tax dañ naan yàlla bu rëddee rëddam nga effacé ko mu rëddaat nga effacé bu rëddaatee balaa ngaa effacé yàlla yow ci sa bopp lay effacé ba pare bu boobaa yàlla bu la effacé kon bu rëddee kenn dootu ko effasé macha allah kon programme mu yàlla kenn du ko yàq kon iñaan moom moo ko sonal yàlla rey ko jël Moussa delloo ko yaayam yàlla mu ne ngir ma feral li nga xamante ne moom mooy ay rongañam kon mbokk yi yépp liñ ciy jàngat mooy li nga xamante ne moom mooy iñaan moo tax yonent bi mu ne alxasuudu laa yasuudu ku iñaan ku nekku kooku di jiite moo tax wa qaala faqihu laysa shay'un min charrin adarra min alxasad la yasillu ila xaasidil xamsa uqubaat qabla an yasillul maxshuru makruhun moo tax mbokk yi juróom a ngi nii nañ ci bàyyi xel juróom a ngi nii dalay yàqal ndax nit ku iñaan benn boroom xam-xam mu ne nit ku iñaan juróom yi moo lay dal nit ku iñaan mu ne juróom yi moo lay dal kon nañ leen jéem a xam juróom yooyu lan la ñu maytu li nga xamante ne moom mooy iñaan bi ci njëkk mooy xammul laa yanqatim mu ne nit ki nga xam ne dafa iñaan li koy njëkk a dal mooy soxla yu dul faju ba ilaa yow mi diin soxla yoo xam ne du faju rekk ngay am boobu mooy premier bi deuxième bi mooy musibatun laa yu jaru aleyha mu nay nattu yàlla yu dul jeex rek mooy wàcc sa kaw te doo kenn du la jàppale dootoo am kàttan ay nattu yàlla rek mu ne ñetteel bi mooy mazmuumatun laa yuxmadu biha ñépp a koy xas te lu mu def kenn du ko gërëm nit ku iñaan ñépp a koy xas te lu mu def kenn du ko gërëm ndax bu defee lu baax sax ñu eggut ci xol bi de kii lii mu def de bu ngeen yeboo maytu ko ndax dafay ngistal kon loolu nañ leen ci bàyyi xel waaye ñeenteel bi nga xamante ne day dal nit ku iñaan mooy yasxatu alayha rabbun yàlla da koy mere nit ku iñaan yàlla dalay mere ndax yow xéewalu yàlla ba ngay iñaane yàlla bu defee lii nga ne lii du fi amee kon yàlla ci boppam moom moo lay njëkk mere waaye juróomeel bi mooy yuxlaqu alayhi rizqu ku ñàkk wërsag ngay doon kon juróom yi moom mooy dal nit ku iñaan juróom yi kon nit ku ñàkk wërsëg ngay doon ndax yow loo am danga koy yóbbu pour yàqal nit ki bu yàggee lan ngay dese fekk ka ngay yàqal moom raw na la te yàlla bu ne diw dina am lii wallaahi dangay sonal sa bopp kon nañ leen delloo si suñu xel nañ leen delloo si suñu xol xam ne kat innamal muminuuna ixwa fa aslixu bayna axwaykum ñu xam ne jullit jullit mooy mbokkam te yàlla nee nañ leen rafetal mbokk gi ba mu rafet kon mbokk yi yàlla nañu yàlla musal ci iñaan waaye ñu ñëw ci benn xadis an abi hurayrata radiallahu anhu qaala qaala rasulallahi sallallahu alayhi wa mu ne sittatun bi sitti yadxuluuna naar yowma qiyaamati qabla alxisaab moom abi hurayra mu nettali mu ne yonent bi mu ne juróom nii mu ne lii moo leen dugal safara juróom benn yonent bi mu ne ci ginnaawam ay xeetam juróom benn yoo xam ne lii moo leen war a dugal safara kon nañ leen déglu juróom benn yooyu lan la mu ne bi ci njëkk mooy tooñ xiila man hum yaa rasulallah saxaaba yi laaj ko juróom benn yooyu mooy lan mu ne xaalal umara min baadi bil jawri mu ne bi ci njëkk ci sama xeet ci samay ginnaaw li leen dugal safara mooy li nga xamante ne moom mooy tooñ kon mbokk yi tooñ baaxu ñaareel bi mooy wala arabu bil asiya yenent bi mu ne arab nag moom mu ne raciste moo leen dugal safara arab yenent bi mu ne racist moo koy dugal safara waaye ñetteel bi mooy waddahaaqina bil kibri mu ne kilifa yi rëy moo leen dugal safara yonent bi moo ko wax kilifa nga nekk imaam rëy dugg la nga ne jàkk bi feek ñëwuma fi bu fi kenn jullee wala nga ne diw su ma waxut kenn du wax parce que yaa ngi rëy rëylu te yàlla rek moo moom rëy moo tax bu rëy rëylu anta abdun lasta bi cheyin yow jaam rek nga doo dara kon yonent bi nee na kilifa yi rëy moo leen dugal safara mu ne ñeenteel bi wattu jaaru bil na mu ne jaaykat yi nag wor moo leen dugal safara wor jaaykat yi wor moo leen dugal safara nit waxaale ak yow ba pare nela teel ma ko suba naa ko ñëw jënd si yow mu walla ginnaaw nga gis keneen nga jaay ko ko danga wor kon wor baaxut wala nit ki nela la ma kilo nga dem peesal ko liibar danga wor moo tax yonent bi mu ne jaaykat te war moo leen dugal safara waaye juróomeel bi mooy al agniya bil buxli mu ne borom alal yi nag nay moo leen dugal safara kon mbokki nay baaxut ndax yàlla nee na allazina yabxaluuna wa yamuruuna naasa bil buxli yàlla mu ne am na ñoo xam ne dañoo nay ba pare di digle nay kon yàlla nañu yàlla musal ci nay waaye mbokki juróomeel bi moom moo ñu tax wax juróomeel bi moom mooy suñu tem mooy ban al agniyaa u bil buxle yonent bi salaa salaam kon juróomeel bi mooy ahlul ilmi bil xasad mu ne boroom xam-xamee nag iñaan moo leen di dugal safara kon iñaan bi ci lañuy taxaw kon yii yëpp baax na waaye ñun juróom benneel bi moom moo ñu gën a yitteel lan moo tax yonent bi mu ne juróom benneel bi mooy boroom xam-xami iñaan moo leen di dugal safara ndaxte bu ñu fàtte ni iblis da doon jaay iñaan waaye boroom xam-xam yi ñoom ñoo ko xëccoo ñoom ñoo ko sëqatoo iblis ba muy jaay iñaan boroom xam-xam yi ñoo ko jënd mu ngi mel ni benn ustaas toog waxtaan lu am solo mu leer leen ni ustaas bi lu mu wax lu wér la ay xadis yu wér la ay aaya yu wér la nga ne ah ustaas bi de waxu fi dara oustaz bi daal da leen di lëre rek dara waxu ko fi fekk yow xam nga ne oustaz bi li mu wax noonu la waaye yow iñaan moom moo nekk sa biir xol waaye iblis ba muy jaay iñaan oustaz yi ko sëqatoo boroom xam-xam yi ko sëqatoo mooy boroom xam-xam yi nga xam ne àdduna moo leen yitteel naan diw daal bu siiwee sama affaire du baax xaala ma bole ko ko xaala ma éliminer ko pour sama affaire mën a baax kon mbokk yi nañ leen maytu iñaan ndax iñaan dafay sonal doomu aadama moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñuy dénk benn xadis bu am solo mbokk yi mu ne laa tabaadu wala taxaasadu wala tanaajasu wa kunu ibadillahi ixwaan yonent sallallahu alayhi wa mu ne maa ngi leen di dénk bu bañante jullit du bañ moromu jullitam yonen bi mu ne bu iñaanante ndax jullit du iñaane moromu jullitam nit ki lépp lu ko yàlla jox nangul ko ko mbokk jullit ñi ndax booy iñaan dangay jeex booy iñaan doo am dara booy iñaan ñépp ñoo lay raw kon na nga raxas sa xol ba mu rafet nga xam ne yàlla moom mooy may nit ki lu ko neex moo tax yonent bi mu ne waaye bu leen yërndu wante yow nit ki sa moroomu jullit ngay lijjanti ci lan la nekk dugg ci compte Facebook am dugg ci WhatsApp am jël portable loolu yépp pour xool li nga xamante ne loolu moo koy indi li nga xam ne moom mooy musiba am na ci suñu jamono ji fekk nit teg portable am nga ñëw jël fa dara daal di jël benn photo publier ko ci internet bi whatsapp bi loolu yépp ndax soxor yow suba ba ngoon yaa ngi topp nit ki di ut li nga xamante ne loolu moo koy yàqal moo tax yonent bi mu ne bu leen iñaanante bu leen bañante bu leen yënduwante waaye nekk leen ay jaamu yàlla ngeen bokk ndey ngeen bokk baay ngeen xam ne kullukum min aadama wa aadama min turab ñun ñëpp ay doomu aadama lañ te aadama ñu ngi ko bind ci suuf ndax yàlla nee na waatasimu bi qablillahi jamian wala tafarraqu jàpp leen ci mbuumu yàlla bi ba mu dëgër te bu leen lan te bu leen tàqalikoo kon mbokk téléspectateurs yi ñu seetaan loolu mooy suñu thème di li nga xamante ne moom mooy iñaan kon képp ku mu nekk ci yow na nga ñaan yàlla génneen la ko ndax feebar boo xamante ne la dafay lekk jëf yu baaxi kon safara ni muy lekkee mat kon ñu ngi leen baalu àq waaye di leen baal àq di leen wax ni lépp lu ci jub ci yàlla la waaye lépp lu ci dëng ci man mii la ndax nee naa leen kenn matoot waaye di nuyu sama oustaz Mouhamed Diop nekk ca Samsudin ak oustaz Mouhamed Kouta maa ngi lay ziyaar bu baax waaye di nuyu ki nga xamante ne moom mooy matu Cissé nekk ca farance Oulay maa ngi lay kooku sama xarit la waaye di ziyaar mbokk yi di ziyaar xarit yi di ziyaar ñëpp wax ni ila maratil uxra wa alamin maa ngi nuyu sama caméraman bu baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان